Bonjour tout le monde. Bon, nous remercions la presse, nous remercions les membres du regroupement des boulangers du Sénégal ici présents. Vraiment, euh, nous remercions tout le monde d'avoir été élu président du regroupement des boulangers du Sénégal. Cela va augmenter l'engagement qu'on a toujours eu pour essayer de défendre les membres du regroupement des boulangers du Sénégal. Bon, La priorité, elle est là. On sait tous que le secteur traverse une situation tellement difficile et qu'aujourd'hui, il y a un statu quo sur les négociations entre les organisations professionnelles, les meuniers et l'État. Rien n'avance, tout le monde écoute l'autre. Actuellement, l'État ne tient plus des réunions. Les boulangers, pendant tout ce temps-là, ils sont en train de souffrir et que vraiment, ça doit cesser. à partir d'aujourd'hui, un nouveau souffle est en train de se passer ici au niveau du regroupement. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, la nouvelle équipe que je vais diriger va insister sur les priorités et taper sur la porte de l'État pour que définitivement les boulangers soient écoutés une bonne fois pour toutes. Que le président de la République sache que les boulangers sont fatigués. Voilà deux ans, on est en train de négocier, on est sur le statu quo, ça n'avance pas et ça doit cesser. Actuellement, la farine, le 31 mars, doit être homologuée à un autre prix. On ne sait pas encore ce que l'État va dire. La facturation sur la sur l'électricité, on l'a souligné ici, Les organisations aussi professionnelles de la boulangerie sont actuellement divisées. Tout ça, c'est la priorité que le nouveau président et l'équipe que je vais diriger vont s'y atteler, Inch'Allah, dans les prochains jours. Bon, on sait que, bon, on sait que l'État a diminué le prix de la farine de, euh, de, de, de sur la TVA. Donc 12% sur la TVA. Les là, Si par exemple le 31 mars l'État du Sénégal confirme qu'il va reconduire ça, au moins que les 6% qui restent sur les 18% qu'il accorde ça aux boulangers. Ça, c'est une priorité. Comme ça, la TVA sera exonérée totalement sur la farine, comme ça se passe en Côte d'Ivoire. en wolof maa ngi sant presse bi di sant mboolem membre regroupement de boulangers du Sénégal. di rafetlu itam euh, poste bi nga xam ne moom lañ ma teg mooy euh, président RBS ma ànd ceeg équipe boo xam ne daanaka xaaj bi miin naa leen donc euh, souffle bu bees maanaam doxin bu bees incha allahu rabbi lañ taxawal lañ fas yéene taxawal boo xam ne moom lépp loo xam ne lii jëmul ci njëriñul membre yi nga xam ne ñoo nekk ci boulanger ak boulanger Sénégal yépp yitewluñu lenn moo ñu ital mooy fépp fu boulanger nekk ci Sénégal lay sa soxla incha allah bu ñu xëyee danañ ci dox. li ñuy ñaan état bi nag mooy bureau bu bees bii nga xam ne installé nañ ko ak yeneen organisation professionnelle ak meññe yi mooy ñu ànd collaborer ngir bopp boo xam ne problème boulangerie la rek ñu jéem ko régler une bonne fois pour toutes parce que deux ans ñu ngi souffrir ñu ngi nekk ci difficulté. am nañ problème ci facturation farine bi war naa wàññeekuwaat wala war ida 31 décembre nee nañu ñu bu fekkente ne dañuy reconduire les exonération bi day continuer ñu ngi ñaan état mu ma ñu 6 pour cent yooyu nga xam ne téyewoon na ko bu ko defee au moins ñu souffle tàmbalee mën a continuer négociation bi leneen li nag mooy ñu ñaan mëññe yi ak euh, beneen organisation bi nga xam ne ñu moom lañ seqal liggéey bi ñu taxawaat sur la table avec la nouvelle équipe te xam ne incha allah